الحي القيوم استغفر العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم استغفر العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما أغلق والقادم لما سبق نزرق بلاقي والذي لا سرارك المستقيم على لقدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما أغلق والقاتم لما سبق نزرق بلاقي ولا إلى صراطك المستقيم ولا ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفرح لما أغلق والقاتم لما سبق نزرق الأقيم ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما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 السلام عليكم ورحمة الله غناو بي نيو نيو موك ييب زياره لين دي لين نوكل يين تي ويرو يوننتي بي صلى الله عليه وسلم يوننتي بي نك لي ليمو واخني انا رحمه المهدات نينا موم ييرمند لا كادو لا بور ادنا بي تي يالا كو واخ تي القران وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بو يالا ني كادو لا دمنا كو مو نيك ييرمند انديل لين كو كون نك ني ني ديف با نيت كي سوب يوننتي بي te loo sopp mu soppi la mag ñi dañu bëgg suñu cofeel ci yonent bi avancé parce que yonent bi boo ko soppee tout le temps boo dee toog da ngay xool lu ne nu mu ko doon defee parce que yonent bi situation ak circonstance bu nit du dund yonent bi nekk na fa yonent bi nekku na orphelin kon ki nekk jirim yonent bi day nekk leçon pour moom ndax yàlla moo ne alam yajidka man fa awa yonent bi ñàkk na yonent bi am na yonent bi am na doole yonent bi am na doole yonent bi ñàkk na doole yonent bi nekkoon na ci jamonoy tiit yonent bi nekkoon na ci jamonoy mbégte kon dundam dafa nekk xayaat chaamila c'est-à-dire dundam dafa global te ba pare dafa am xayaat kaamila dundam dafa parfait looloo tax yàlla mu jox ko mu nekk cadeau pour jaam ni mu ni te moom sax yonent bi bala muy egsi foofu yàlla dani ko am na ñu la fi jiitu am na ñu la fi jiitu jëlal kenn par kenn nga roy leen muy xool di roy di xool nu Moussa mel yàlla ni ko innahu kaana muxlisan xoolal Moussa moom de ku selloon la mu jël yonent yàlla Moussa mu ni ko Ismaïla innahu kaana al waadi Ismaïla ku dëggu la ku fonk rendez-vous la yonent bi jël ko mu ni ko xoolal sa maam Ibrahima ko amoon pas-pas la mu jël ko ni ko te ku lewetoon la inna Ibrahima la xalimun awaahun munib xoolal Yuusufu sëri mi ngi ci moom inni xafiidun alim kon yonent par yonent yàlla moo leen jël teg leen ni yonent bi xoolal ci ñi yonent bi di jël par kenn boo demee nag ñu baax nga fexe dajale seen baax yëpp yaa leen mujj gën moo tax ngën gi mbindeef bi du titre buñ ko takkal nii mais mérit la ci moom parce que dafa mel ni mu war a mel looloo tax nag mag ñi xam ne bi gën a gaaw pour nit ki soppeeku mel ni mu war a mel moo ñu fexe xirtal ko mu sopp yonent bi sallallahu alayhi wa bii boobu moo tax Seydi El Hadji Malick ak mag ñu baax ñi mu ko seqal yëpp ci Sénégal ñu fexe nag di insister ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa bu ñëwee yonent bi li ko yàlla jox ci leer mu di ko sédd nit ñi ci guddi gàmm la waaye bu ñu xaaree ba bis ba ñëpp ñëw du sotti burdu yéen fi doxal pour nit ñi raxas seen i ndab préparer parce que ñun suñu équipe yi sax ñu am ñuy football def seen entraînement xol fay yi xool fi ñu foor xool lay yëpp jàng équipe bële bo buñ ñëwé li ñu soxla ñu mën ko def lool rek moy biwu juddu yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour diko ko kep ku kep ku nak fu mu koy magal rek yalla na yalla defal len tawfiq defal len ndam. Euh, ndaw ñi liñ leen di denk rek moy fi ñu tollu fi la yonenti bi tolloo. xam nga boo demee ba naan xaala xaalafani suyuux wa wa wa xaalafani shabaab maanaam yonent bi ci jamono moom nee na mag ñi dañ ko won gannaaw mais jeunesse la gisoon ci kanamam nga mën a compter Bilal ndaw la woon nga mën xoolal ku mel ni Mus'ab ibn Umayr nga xam ni biñ koy rend biñ koy rey ci islam muy nekk martyr amul 30 ans yonent bi xëy jox ko drapeau xalol ab Usaamatu ibn Zayd kenn par kenn koo ci jël rek. fii ñu toll fi lañ tolloon mais boo tollee nekk ndaw da ngay am fuggu jeunesse après rapidement daf lay rëcc nga am foo jëm léegi nag bala mu lay rëcc ëllëg ngay dabaatal lu bari mën nga jël yonent bi teg ko sa kanam nga am sa àdduna am sa alaaxira te dara du la rëcc fexe ndaw ñi daal ñu fexe góor góorgóorlu xool ci yonent bi xool ay comportement am jànge ci moom waxin parce que léegi dañ ko dañ ko rafle jànge ci moom solin yonent bi da doon solte solom du débordé jànge ci moom nooy tooge jàng ci moom nooy jëflante xam ni it énergie bi la yàlla jox nga nekk ndaw danga nga ko war a transformer en synergie jariñoo ko ci sa dund mais waroo ko jël gaspiller ko xëy ba xëy nekk mag ñu ne bi nga nekkee jeunes jeune lan nga def nga toog di xoole loolu baaxul te mooy yàlla amna ay ndaw ño xamni ne ëllëg yowmal xiyaam nee yonent bi duma ma leen sax dugal safara dañuy ñëw man leen azhabtum tayyibatukum fi hayatikum ad dunya ay ndaw lañ nek ci seen digg doole faatu bu ñu démé yàlla da leen di xass yedd leen te amna fo xamni nit ki dóor la sax mo gën mu kii la yàlla dañ leen ku xam jeunesse ni mu mel bo nekké ndaw parce que ndaw dafa nek ci digg digënté ñaar ñu mënatul ndaw jeune fi mu nekkee jeune ni dafa dafa séen ci kanamam mag te kooku mënatul am ku ko féete gannaaw te kooku xale la mënagul ki mënagul ak ki mënatul seq ki man kooku nag dafa war a xam ni paase bi te dina dem ci bële waa moom nag digg boobu mu tollu dafa war a am nu mu war a defaree dundam profitoo ci jàng diinam profitoo ci defar jeunesse li ko war lépp mu def ko ba fa tabaarakallaahu bu màggee du jëppi boppam loolu rek la ñuy dénk jeunesse bi ñu góor góorgóorloo ko waaw kàddu gu mujj ah di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla képp ku nekk fa ngay gàmmu ji rek yàlla defal la tawféex jàppale la dimbali la incha allahu réew mi ñu nekk Sénégal wa dëgg yàlla réew la moo xam ni di Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al di wax ni ci ruqi yonent bi la bokk te franchement ku ñëw xam ni nit ñi def nañ ko seen xol kon nag cofeel googu ko waa Sénégal ëmbal ndaw ñi ëmbal ko ko mag ñi ëmbal ko ko jigéen ñi ëmbal ko ko ñëpp ëmbal ko ko yal nañ ko jariñoo ci biir jariñoo ko ci biti ku xool suñu mag ñu baax ñu ko ci way dangay xam ne dafa jeex tàkk ci yonent bi ndax bëgg ko waaye nag bëgg yonent bi du mbëkk miir bi bëgg yonent bi du dara walaysa nafun ala xubbin bilaa amalin wa taabi an sunnatal tani mi kenn daawul jàngale siira di ci dugal di ci dugal après sa après gannaaw boo jàngalee siire yonent bi rek da ngay tëj boo waxee fi mu faatoo Seydi Hadji Malick bi mu defee xilaas ba ba muy jeexal buntu bu mujj bi daf ko tuddee wujubu taatil hadi léegi nag gannaaw lii lépp ma la jàngal ci yonent bi waxuma ko pour nga yéemu pour nga jéem laa bëgg nga def ko parce que kii ku ni sopp nga ko da ngay commencé def ay actes yuy wane ni sopp nga ko te sopp ko mooy fa yonent bi koon tànkam nga teg fa sa tànk kon nag ñi ngi yal na yàlla nangu defal ñu tawféex wa salaamu aleykum wa rahmatullah